se tiendront le 31 juillet prochain les élections, des élections législatives. Les Sénégalais seront une fois de plus appelés à renouveler le Parlement. C'est une échéance cruciale pour la survie de notre nation, de notre démocratie, de notre liberté, de l'avenir des filles et fils de notre pays. Par vos votes, vous déciderez de la destinée de notre grand et commun bateau qui est le Sénégal. Mon modeste parcours, l'exercice de mon métier, ma soif de connaître mon terroir et d'apprendre des hommes et des femmes qui ont fait son histoire m'ont amené à rencontrer le peuple dans son entièreté et sa diversité, de l'écouter, de dialoguer avec lui, de s'enquérir de ses pré préoccupations et de comprendre ses aspirations fortes et légitimes. Ceci me conforte dans mon attachement à notre grande nation, ma fidélité aux valeurs d'humanisme, d'empathie, d'ouverture d'esprit, de solidarité agissante et de convivialité. C'est fort de ce constat que j'ai décidé de m'engager davantage à vos côtés en répondant favorablement à votre invite. Je suis candidat à la candidature pour les élections législatives du 31 juillet 2022. Cependant, Votre caution morale est fondamentale, mais n'est pas suffisante. En effet, je ne vous apprends absolument rien. Une modification non consensuelle de notre loi électorale, à savoir le parrainage, a produit une hérésie en violant le principe élémentaire de la libre participation pour tous citoyen ou formation qui la désire à des joutes électorales dans notre pays. Cette démarche unilatérale dans le changement des règles du jeu est inadmissible, inélégante et n'honore pas notre pays qui a une si longue tradition démocratique. Notre position sur cette question est sans ambiguïté. Nous la désapprouvons totalement. Malgré cet obstacle dressé pour étouffer l'émergence d'une quelconque autre vision et, et façon d'opérer, je vous réitère, mes chers, mes chers compatriotes, mon engagement à vous représenter dignement et vous servir humblement au Parlement. Le parrainage ne saurait être un obstacle pour euh, notre dévouement à vous représenter davantage, à sacrifier notre zone de confort et à questionner sans cesse la redevabilité que nous avons vis-à-vis de notre cher pays. Je vous invite donc, Sénégalaises et Sénégalais, d'ici et de la diaspora, à parrainer ma candidature, à parrainer ma candidature pour nous donner l'opportunité de mieux entendre, de mieux faire entendre vos revendications et attentes. Ensemble, nu tenons notre salut. Ensemble, nu vaincrons. Inch'Allah. Je vous remercie. maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di gërëm bu baax ñi nga xamante ni yépp jamono bi ci biir réew mi ak si bitim réew ci fi gën a sori ci biir Sénégal suma mbokk waa Caajaay waa Mbuur waa Cees ba fa gën a sori ci Sénégal waa Matam waa Podor waa Ziguinchor suma dëkku xol waa Kanel waa Njum fa gën a sori waa Ourossogui ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu waa Thiès waa Kébémer waa Touba Mbacké waa Tivaouane